doole muy bëre soo bëri li daan mbaa ñu la sama yoni nga jaay doole yi bëre soo bëri li daan mbaa ñu daan la bëri leen nooy bëri leen laal la baaxu góor la ak li ko war ñu ngi leen di nuyuwaat fii ci QTV ah. First Private TV indi Gambia mbokk bu ngeen gisee nag fi ñu taxaw ni ngeen xam ne maa ngi Jim Johnson fii nga xam ne mooy Kunkujang mbëri di fi traîner ndaanaan yu bëri ji fi jaar ah mbokk yi kon tey ji xam leen ne lamb la ñuy waxtaanee di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax a baax di amaan mbégte a kontaante ngir jàkkaarloo waat ak yéen ñi nga xam ne yéenay béggee lamb mbokk yi tey nag dinañu am euh, programme bu spécial ndax ndaanaan yu bëree bari tey ñoom laa nar a dajale ngir waxtaan ak ñoom ci event bu mag bo xamni mi waja am waye bala loolu ma nuyu kep ko xamni ya ngi ñuy ci nuyo bi rek sama xarit sama euh, mag sama nijaay Matar borom saf-safal bang koy bëggee bu baakha bax di nuyu mbollem ko xamni ya nga fa di la ñaanal jamm bu baax mbokk yi tay nak damay and ak chat Promotion seti mbeur yi nga xam ñom la teug muy fukki combat yo xam bu ci nek neena la mat na grand combat waye amna mbeur yi ci yo xam ño nek ci biir programme bi tay fasiyene na len seti ku ci nek wax ñu noy la noy waaj jakarlo bi ndax 12 february moy jakarlo bi xam nga ne last week amna luñ ci ñamalon gaay waye nak afta buñ démé nak ba six match ci la combat bu mag bi nak ndanan yi koy bëree tay ñom la nara séti ku nekk wax ma nak ngay wajalé sa jakarlo wo say mbokk wo say xarit wax ñu combat bi ni mu tollu ci yow ak kan ngay lolu motax tay ma ñew fi ci Jim Johnson fekk fi yenn ndanan ñu fassiyene waxtaan ak ñom mbokk yi du yomb ben yoon képp ku bokk ci programme lamb ji jappal ne tay programme bi di nga gis li nga xamne ni mom la caat def muy innovation bu ama am solo ay ndanan diko beure mbokki suko defé rek ñu dem seetaani ndaanaan yooyu te dellusiwaat mënu ca ñàkk zaaru ko da koy duma Waduh malah, la ah waaw ñu waduh malah, fayewuloo waaw waaw duma la waaw duma waaw duma duma waay jàppoo nomba nomba da daf waa di nuyu waa axlu làmb yëpp di nuyu journaliste promoteur ñëpp di nuyu sumay supporter tamit di nuyu waa lu nonkoona waaye Bakoote Sukuta Johnson Ba Tiba Garas Serekunda Marché ñëpp di nuyu waay Jogaatu rawatina suma dëkk Kalaaji Këru di nuyu waay Kër Amadou Taaleen Ciise Kuntaya ñëpp Kër Omar Seen di nuyu ñëpp daal man la Omar Seen di war a bëre dolli ma inshallah on the 6th March Serekunda us Mini Stadium wa di wo supporter yeb nak kep kuy beugé Eumeu Sène ñu ngi lay wo nga ñew japp ci combat bi ñu dafal boy bi bagage xol lenen si kàttu yàlla. motax tax ma la. tata ah jël na ko combat ba du jeex. non da eh, dolli ma ndaw Samba. da ko eh, teraf etoile nak ni mu duggé eh, ay way fàqat ba. daf ko tërëfu fàqat ba. wéele ba waaw waaw mang koy rëcc. dolli ma wéele na ko waaye étoile bañ na waaw waaw étoile mbërëntaan la. da nga a bëre waaye dool li ma tam bërëntaan la da nga mën a bëre ndax fi ko étoile yegg bu bëree bërewu doon a bëree du ci génn jaab ak neema laa ilaha illallah jaab ak neema il faut mu métti foog mu métti xoolal kàbb mën ta toog laa ilaha illallah kàbb mën ta toog barki rasulullah lii nag lii mooy sëqatal pour mu génn saako yi pour mu génn saako yi ko sëqatal pour mu génn saako yi waaw gën a am jàpp bu baax waaw waaw maa la gis nga étoile mi ngi sëqatal dolli dolima ya, ya. waaw dolli ma daan na étoile daan na ko gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur bu baax di wax jërëjëfee Maolana Cheikh Ibrahima Niass jërëjëfee Cheikh Ibrahima xam di nuyu wa àdduna yëpp di nuyu wa gambe di nuyu journaliste magar ndaw ak di nuyu sama wa gox sama wa famille waaw dolima la bu jaabang mbooloo xam fane noonu la demee maa lay nuyu waagaan di nuyu sama staff staff dolli ma di nuyu waa Ndakounda family di nuyu sama famille Salem di nuyu waa Ngodiba waa Sant Ousmane waa Daaru bu Sumbaala waa Latiria waa Guy gi waa Abuko waa Sukuta di nuyu ñëpp ah ku luum lim doo matal dolli ma la bu jaab ak mbooloo war a ama seen bu Sukuta xama waaw di ñaanal ñëpp jàmm di woo gaay yëpp. xam naa dolli ma ah, bii mooy loolu bii bu maafe bi sax. dolli ma bu maasa bi du ceeb de. waaye bi nga ak ah, moom la rek ba tey. ah wóor na yàlla. xanaa gis naa lépp. wa affaire yi mooy loolu ñun amuñ fi ñu tiit yoo xamaloolu bu baax. waaw non laa mujjee ko laaj rek comme ñi nga war a bëreel bi la jëlul ñun ay xale lañ dañuy tireen di liggéey la yaakaar làmb tamit xam ñi la war a jël bi ñu la jëlul nga xool say morom rek nga jël ngeen bëree te yàlla xam na ne booy bi du ma moom sax incha allah su suubaar naxam xam kii mun naa ko jàngal bëre barki rasulullah ah day wax rek xamal mu wax dafa neex yaay neexal baax ay moromam waxoon nañ ko na ñëw ñu neexal rek bu neexalee man neexal rek mu neex incha allah waaw du yomb benn yoon bu jaabee na mu ngi bëree combat bi yomb nax boobam waaw. war a bëreeg Eumeu Sène bu sukura xama waaw di ñaanal ñëpp jàmm di woo gaay yëpp. Nawan fawan jakar jàkkaarloo bi on dit toytif la Serekunda West xama comme niñ ko daan defee di wo gaay ni ñëw xama wa Daaru bu Sumbaala wa Laatiria wa jabang wa Cambodia wa Paradise wa Sukuta wa abugo xama wa Jalakunda di nuyu suma père yu fa nekk wa bandang, bandang sama papa ji kir Masi di ko nuyu bu baax Keba Ndiaye xama di nuyu gaay suma staff grand Baawkar Adama di ko ñaanal jàmm bu baax baax di ko jaale magam bu génn àdduna fu mu dem yàlla na ko gën a fu mu bàyyee ko xam nga bu nuyu ñëpp ah waagaan maa lay siyaar baax waaw xam nañ ko nii rek comme yeneen adversaire yi rek noonu la demee jëmuñ ko lijjanti sax làmb ñu boole ñu nag moom na woon fa woon ndox du bàyyi yoonam xam nga man waagaan làmb nekkatuma fi di ut naan fii laay bëre wala fële laay bëre man dama ñëw pour lan Siteu ne dama opté pour nekk mbër xam dama jël ma man làmb mooy sama métier xam nga mën naa wax ne amuma si dara fu mu toll nii mais yaaxal na ma lu bëri. kon man lu nekk sama gannaaw lamb taxul man waruma si caaxaan nekkul koo xamante ni damaa war a dem gëstu booy wala nii naa nale combat bi jarul xonqal tuñ mu ngi wax man ama seen suma ma takkee lan la amal sens dafa ëpp booy yu ma booy booy yu ma doon man du ma wër fu nooy ku xool combat yi ma bëree yëpp amul benn bu nooy combat yi fi ñëpp ku fi ñëpp bàyyi lay jël bëri man man combat yi soog rek lay bëree. Ya, inshallah rabbi allahu ya, ya, rabbi yàlla Ya yaayal jàkkaarloo bi andi 12 February di wo fans yeb nak kep kuy bëggee Eumeu Sène ñu lay wo nga ñew andi 12 February Serekunda wess waaw ñu daf ba mu neex inshallah allah may yëngal si kaw ngeen yëngal si suuf inshallah allah si kàttanu dali mom luma koy wax bëriwul lamb len wax xama muy takk rojo di wax lu ko neex na wax na xamna nak bu jafé na mi ngi bëree combat bi yom mi ngi nax bopam dañuy jëflante ñu ñaar dañu fay pour ñu bëre dañuy jëflante li muy wax na ko gëm lum ñëw rek ñu bëre bu indee xeex ñu xeex bu indee bëre ñu bëre bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma si kàttuñu yàlla. Moussen lan laa koy dox di napp kanam kañ xaj na moom moo may xaw napp nii di am lu muy doose combat bi lu ko neex na soulager man ma man la waaw nu daan nu ma nu daan def rek. maay bëre maay xeex. maa ngi daan mbooloo bi na sant yàlla bu baax gars yi ngi waaj comme d'habitude waaw président fans club Ibrahima Ibrahima maa ngi koy nuyu xama di nuyu sama gaa yi nekk Bijuloo waa Sukuta lamb ji amul leen lu ñu xamante ni dañ si def benn erreur jël neen ko xama sérieux comme ni ñu daan jëlee yeneen combat yi nag waaw kombaala la comme yeneen combat yi mais nekkul combat boo xam ne daf ñuy tëree nelaw wala daf ñuy xelaaloo wala leneen jaar jàll rek seeti waa comme d'habitude waaw waagaan foofu yàlla la ko taxawal gis nga di mbër moo xamante ni ñëpp la xamee benn affaire bi rasumaan la waaw rasumaan la carrément mais dama koy ñaan lu mu fi dëggal léegi nag combat bi moom mooy neexal na ñëw man attaquant la man man moom ku nekk xam na sama làmb waaw du ma fi nekk di yàggal arbitre yi wala li ak nale na ñëw ñu bëre ñu teg ko si yoon xam man man xale man làmb ji lu mu laaj ma def ko man làmb ji dëgg la moo ma may sens nangu naa loolu mais combat bi nekkul loo xamante ni damay ñëw na damay jël dama koy jaay xam nga waaye daal dinaa ko teg si yoon ba yàlla may ma si ndam incha allah buñ na suba la combat bi waagaan man boo ma koolee may la nii lay daane Eumeu Sène buñ na suba la combat bi instant bii nag mënu la wax dara mais buñ na suba la combat boo ma koolee na ma dolli ma combat bi nag man ne la nii lay daane Eumeu Sène. déggoo ma de su bëree ma daan ko su xeexee ma dumoo si kàttanu suñu borom. waaw man moom mooy loolu. moom na ko dégg dolli yow laay wax yow. boo bëree ma boo xeexee ma duma ñun moom mooy loolu fu ñu jógee ñëpp jog amul Serekunda amul Londonkoona amul Sukuta Johnson Ba ñëppay jog ba jogaadu boo demee jogaadu ñëppay jog ñëw suñu amee combat dañuy jàll di ñëw di jàpp si combat bu baax kon combat bi tamit maa ngi woon ñëpp di leen woo neen gën a jàpp bu baax a baax a baax incha allah ñu duma ko si supporter duma ko ci beure bi daan ko ci kàttan suñu borom. man jabang la dekk buma xexul na luñ ma wax jabang la dekk ah waakaan yow timel nak bu melni xamatu lo dekk bi man jabang la dekk xama sama papa Kir Masé mo koy gëreem ci combat bi Adama Baawkar Keba Ndiaye han ah, ibrahim Wilane prezi dañu sonu bu baaxa baax ci combat bi xama suma su ma mag ala waa marché nda wa Ngodi ba yeb ma lay ñaanal jàmm xama di talal ñepp loxo ñu ñaanal ma képp kuy bëggee jaabang mbooloo rek doole ma mu ngi lay taalal loxo xam nga waaw xam dama leen ko waxoon na leen isbaak bi dafa nekk loo xam ne damay confirmer pareegu ma xam nga te maa ngi si confirmation ba léegi kanaa bu ma daanee am seen dangeen man nangul waaw bu ma daanee am seen bu boobaa dangeen ma nangul parce que booy yu ma jël yëpp xam nga manuma leen daaxuma leen bëre mais yàllaa ñëw ak ndogalam asam bi yëpp lan la combat am yu mu bëri yow léegi ban combat la arbitre soufflé Eumeu Sène dox sa kaw bëri ndaanaan champion la man ma ko nangul champion la ndaanaan la tamit mais man damay ñaanal sama bopp jàmm ba suur ba man ñëw def nu ma daan def Eumeu Sène yow mënoo ma wax combat bi arbitre bi dafa soufflé Eumeu Sène dox sa kaw. waaw xam nga rek làmb ji ak li mu laaj rek combat bu nekk ak lu mu laaj bu laajee gaaw dina gaaw bu laajee yéex tam dana yéex mais ñi liggéey daal si lépp si bépp boor ñu ngi koy liggéey ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. waaw du nuyuwaat ñëpp di ñaanal ñëpp jaamu xam nga du nuyu tam sama doom day xaatim xam nga fu ma jëm daf may topp xam su ma ko combat lu ne la siy daj li man ak lu manut yeb lay def xama dama koy geureum bu baax di ñaanal yalla jàmm xama di woo mafia bi marché Serekunda bu ken des jaagari fugu jaay ready made bi ribi bi ci kaw ñepp neen ñoo inshallah rabbi on tuel si jàkkaarloo bi ñu dafa bam baax xaar on six ñu defaral boy bi xol leneen ci ñu yalla di wo way jogaatu di leen bu baax na len combat bi sen combat la neen si jàpp neen si jàpp bu baax a baax a baax di nuyu waay paaleen Sandial paaleen bariwu dama leen di nuyu bu baax a baax dañuy jàpp si combat yi neen si jàpp bu baax waaye ngóode ba neen si jàpp foofu sama dëkk la ngóode ba ñëpp di leen woo neen si jàpp nu daan jàppee daal na gën a métti waaw neen jàpp bu baax xama di woowaat waa Bakot rawatina Diasikunda sama yaay Mariama xama wax xale yi ñëpp ñu mobilise ah ñu ñëw def ba mu baax incha allah rabi waaye waaye Londonkoona su rawatina Marakunda fu ma si kër ma dëkk suma kër famille maa leen di woo xam nga di woo gars yëpp da wax neen jàpp ñoom ñëpp ñu ñoom Serigne Mbacke xam xam nga ñoom Baye Bas xam nga ñoom Matar ñëpp xam nga di woo ma xam nga ñëpp neen ñëw daal jàpp si combat bi xam waaw di siyaare waat ñëpp ah di bëggee ñëpp bu dee tamit juum neen ñu jéegul waaw sant. combat lu mu laaj dañ koy def combat bu dee dafa diire sax nit depuis cinq heures ba cinq heures si fajar dañ koy bëre sax dañ koy bëre ndam rek nu ma ko amee baax na parce que ëpp ma physique ëpp ma condition gënu ma ëpp ma xeex si combat bi. musculation maa ngi koy def bu baax xam doole moom suma morom bu di waxuma ne nag yàlla am ëpp doole ñëpp mais sama morom bëgg gisuma nga ëpp ma doole ba suur baa bu ma summee ko nga xam ne ama seen ëpp ma doole man dama liggéey waa jàkkaarloo bi ñu ngi koy waajal comme jàkkaarloo yi ni ko daan waajalee rek xama si wàllum woote leen toll ñu ngi woo gaay yëpp képp kuy bëggee doole nga ñëw xama jàkkaarloo bi andi teelif la Serekunda West xam nga time bi moom léegi dafa change six la xama na gaay yi teel a waaj ñu génn comme d'habitude ni ñu ko daan defee rek waaw di si woo nag sama papa yu nekk ndaw ko daa famille ñoom Baye Thier xama ñoom suma bàjjan a ah suñu bi yaa ko yaa anti Marie Diouf Ndaw ñu ko si woo nga jàpp si bu baax a baax a baax yaa ko ndaw ñu ngi lay woo nga jàpp si xama aji see ndaw Babacar Ndaw moom xama aw ma fayam Babacar Ndaw laatir yaa waaw kooku moom duma la ko expliquer waaw moom daf maa féetee fu ne xama mais ndaw ku ndaw famille su ma limee damay jub maa ngi woo ñëpp ñu jàpp si combat bi mag ndaw góor a jigéen xam nga média la maa ne woo ñoom ñëpp su ma limee du ma matal mais ñoom anti ndey jooja sista soxna yaa say bakaw xam nga maa ngi oo nag ñoom ajeeg gaa yëpp xam nga du nuyu fan su club bu es bi ah Wally famille bi maa ngi woo ñu jàppale ma si combat yu baax a baax xam di jox nuyoo bi aji di la wax gaa yëpp ñu jàpp si di wax sama famille Sàlleen bi sama famille yaay bi maa leen ne woo ñu jàpp si combat bi baax a baax a baax xama Adama baaxukat wi laan prési ñooñu aw ma seen fay xama Ousmane Sall di ko ñaanal xama moo xadi sëy bu neex ta barke ñoom yàlla am seen fay yal na leen ko yàlla fayal Keba Ndiaye tamit di ko ñaan sëy bu neex xama sama père kirmas yi aw ma fayam waa sant yàlla rek loolu yëpp xama si gannaaw gars yi la rek ñoom président bi ñoo ko nekk di liggéey man xaw ma dara aw ma dara te gaa ngi si liggéeyaat bu baax a parce que mbooloo mi fans club bu nekk diggante dama leen si woo bu baax a baax fans bu nekk diggante maa ngi leen si woo xama fans club bu ees la diggante leen nekk ñu ngi may dooleel happy family la diggante maa leen woo si combat bu baax a ñu jàpp si si xaalis lépp xama képp kuy bëggee dolli ma rek maa lay woo si combat bi nuñ daan def nu ko raw waagaan dama la doon wax leen man kenn du ma yàqal sama olala kenn du ma yàqal sama olala waaw Eumeu Sène yaa may xool yaa may gis dolli ma la waaw combat loo ko bëgg benn bëgg nañ la ko gën nañ la koy bëgg fukk boo jàppee ne ñu ngi lay ragal wala ñu lay xool bëtu la demeewul noonu combat bi lépp lu mu laaj dañ koy def amul benn loo xam ne dañu ñëw di asaaloo combat bi jàpp daan lañ xam dañuy jàpp daan comme d'habitude rek nuñ daan def lee defaat nawoon fa woon ndox du bàyyi yoonam noonu la demee. diggante eh diggante dugub rëccu ak xoyantaan xoyantaan dóor. dal dóor na ko dóor bu dal laa ilaha illallah lii bu la ko dóoraatee du baax de bu la ko dóoraatee du baax de ko laa ilaha eh eh waaye yéen eh eh dina ko lay lan laa ilaha illallah laa ilaha Abu ah, ma sant yàlla julli si yonente bi di sant sama ñaari ayur, di sant bépp wajur di nuyu booy ma anad mi armée ak Ramdan di wax Ram yaayam fu mu tëdd fële ne lee yaa na koy may tene baax baax baax di nuyu suma waa dëkk bu baax baax di nuyu fu jiyo ko mi Bakor di nuyu suma siste bi Ndiayo di nuyu ñoom Aba suma onkul di nuyu Big Show di ka ñaanal yala ya na yala ma may ndam si kaw Aliou Mbaye bu baax a baax antitooy man maay dugg rëcc buntu waaw c'est si baa ngi noonu euh, di ñaareelu combat bi nga xam ne gis nañ ko de laa lay la la combat ba ba jeex eh, laay na Malick Niang confiance daan na Malick Niang oh combat bi gaaw na confiance daan na Malick Niang confiance daan na Malick Niang oh, oh. moom waaw su ma nee ne dama koy wax dara rek mii loolu confiance laa mu boolewuñu confiance laa mu boolewuñu billaahi soo xoolee ñu ma bëreel ak ñu ma daan ak moom sa dafa uute ci lu ma jiyee ko moo doy waar rek ma jaar ci moom waaye laa mu boolewuñu non n'est pas de problème billaahi mën naa gérer lépp man benn defet laa jàpp laa am mooy su ma diggante ak Jordan su ma combat bu passé man ak Galion loolu roof la daanaka mii lool waaye ba léegi defet la <laughs> combat wo so gisee ma jëloon ko bor mo mo si dama amee bor so silage mo mo si dugal wa du len waaye ba tay rek duma xajamal ndamam waaw daan na mom jël bu rëy kenn mënu koy wéren lu ko daanoon ba légui mu ngi ci man dara gennu ci ma yama xex bi ma yama ben ben do rek la ñak pour ñi bàyyi xel waaw ta ngeen xol nu ko ñaké dama gëm yalla dama xamné ne mo daan may su ma rek baal ma tok samay nit waaw ñu naxarlu ko ba mu jeex waaye xam nga doo ñàkk topp dëkk bi di wër néeg nii day mel ni defet bi dalaa neex dama lëlu ne suma entraînement yow soo ma gisee rek xam nga ne nekku moon di nelaw dama am ci lu ma nekkoon waaw te suma ay fans dama la amee bor bor bu rëy waaw te season bi dinaa fi wane loo xamante nii ñëpp dinañ ko yow sa di nga wax waaw mi loolu non bo dama wàccoon suma yoon bu baax a baax ba xamal ko sama bopp léegi dama ñëw tegu ci yoon bi fu ma fu ma jaaroon ba daan tegu naa si yoon boobu moom la fu maa fa tegu raay naaw nii defu fi dara confiance aduna yeb sanja njabalé muslu sanja njabalé muslu billahi confiance sin jagoré rem momu ñaak maka daxa feti maka upp mbolo maka daxa xex maka daxa beure manama dama ñi mu taxaw ñi xex 30 minutes avant ñi beure wa man confiance parce que ndol la ni man amu tok sa tangal dañ taxaw ñi tacci tacci ba amateur yuxu yuku, li ne kur dama taxaw xexa jordan ba nit ñi yuxu mu mel ni lu ma ragal ba ma ñàkk daf ma oo si xeex ma fekk si ko ba mu mel ni lu ma ragal ba ma ba ma ñàkk. confiance ma bëgg mu taxaw ñi xeex lu métti mu yóbbu ma njawara ma yóbbu ko mu yóbbu waan ma billaay damaa namm ku ma noox billaay damaa namm ku ma teppi. billaay walaay talaa dama kaa bëgg. nga waagaan tey jii su ma simeeku woon tey jii nii moo leen. man tëdduma di nelaw di nax sumay fans. confiance dama ko boobaa moom ak Cheikh Kara tëdduma di nax sumay fans dafa am ci lu ma jógee ko. dama ameel gaay bor te bor bi du wax jëf la na taxaw ñu raak. non ça dépasse ñoom lu ma lu man nekkul ñoom ñoo may tax a tireen du ñoom billaay soo xoolee grand combat bi tey man na moom dañ bëre tey maa koy bëreel spécial te grand combat bi fausse combat man maa leen bëreeloon spécial seen fausse combat secondaire school man maa bëree spécial ak yéen si Boy Basse mu ñëw bërewaale leen spécial kon duwul yoon ma ñàkk combat bu waaw xam nga mu baax bu leen fàtte démb billaahi def naa lu ne si làmb dama teglante loo xamante ni warul rek moo tax ma simeeku wala ne man maa ngi ci maa ngi ci liggéey yu métti te xale yi ndaw ñoo ma combat bi booy yi ñoo ma ko gën a bëgg armée ak ak ak ramda ñoo ma gën a bëgg combat bi xale yi ndaw ñoo ma fayal jim jëndal ma ay protéine fajar ñi may yee géej nga xam nga xam ne ñii lu ma def ñoo ma ko gën a bëgg lu muy liggéey lijjanti moo ko barki Cheikh jan na laa wax de na suul tànkam ñi xeex man du ma bëree man xeex laa bëgg mu ñëw ñu def dootuñ ma nax non non non lu ko lu ko feesaloon ba tey mu fa. alliance dégg naa ba léegi dañ ko tëj alliance daneen ko ibbi man ak Jordan daneen ko ibbi man ak moom ñoo ko ib ñoo ko tëj daneen ko ibbi incha allah. di di di di mastaw di sigee di siggi ndigaale del suma promoteur bi di nga fu mu tëdd fa la yàlla na ko yàlla xare àjjana moom mo ma tegaloon suma fausse combat man ak Galion ba pare faral ma ma ñak mu kol ma meneko lamb lu lum la metti man la gëna a dama lan am dama ñak amu ben problème bu ci amul lo nakari sax yàggu ma na dafa gaañu lu génn gën si man da ngay gis na bakkan mo gëna a do doomu aadama man dam la ñàkk way mom bakkan la ñak so loolu rek jangal na mu lu bari so moo tax mii loolu alias Franco degg na dañ ko tejj man maa koy ibbiwaat na wess xam nga suma waxe mi lool bixo Big Show firnel nako ñun VIP bu fa kenn tok ñun ñoko mom VIP bu fa kenn tek ticket yëm nañ ñu ko jox ñun ñoko mom non nañ nen dem gétt xar gétt xar le mérito waaw ñun dañ paré ci lepp yiré sa jëndu mako ci làmb bëgg-bëgg moo ma ci tek waaye xaaliss mo dama war liggéey ba dé ndi boo yooyu xaaruma kuma dimbalé nak ku ñëw duma la gantu waaye xol maa ngi ci yoon bi ku ñëw fekk ma fa ku ñëwul lijjanti ma la di laa di ñaan dimbale rek Ousmane Kébé di la woo si combat bi nii yaakaar naa la ci trop à la promotion di woo sanc ba yëpp combat bi seen combat la man doomi Ndungu Kébé la de di woo Kunta Kunta suñ grand la Kunta Kinte nag génn nag génn jàppale ñu Kunta Junior di ko wax fu mu nekk nële yal na ko yàlla xam nga mu ibbi foofu moom moom du ñu xaar si lenn su déggee suñu combat rek nii lool di nuyu mafia bi yëpp di nuyu xam nga booy Bakode yi di nuyu waa équipe bi di nuyu suñ manager bi mi ñëw di nuyu suñu former manager bi mi Pa malik di ne Bigso di nga ñaanal ndam bu baax Bigso moom xolam yal na ko yàlla fay rek billahi da sonn ci ñun te ñun jëriñuñ ko dara di nga ñaanal yalla yalla may ko ndam bu baaxa baaxa baax di ñaanal armée xam nga yal na ko yàlla may combat parce que xale bu ndaw la mu ngi entraînement yi te xam nga mbeur mu ndaw ne ci entraînement amo combat lu tamit yeneen la di wa përmu la ñu seet ko Ramdan tamit yal ko may combat di nuyu staffam waaw dat bi sori na trop wa nga muñ rek after weeru koor danaka ñëw nga muñ yalla baana lepp ñu tek ko ci loxo yalla rek di la nuyu waagaan bu baax a baax yow moom xam nga seq na leneen lu dul TV di nuyu waagaan junior di nuyu suma waa ji waaw mii lool di nuyu xaw kiw TV yëpp dina wax ne waa mii lool. combat ba na diggante Tonnerre ak ki xam ne moom mooy Robert bu jaabang Tonnerre Tonnerre door na daan xëy xeex nañ ca kaw xeex nañ ca kaw eh eh Tonnerre Tonnerre jàpp na. Tonnerre ak Robert jàppante nañu ca kaw jàppante nañu ca kaw oh oh jàppante nañu kaw ca kaw ku kor sa morom mën ngaa xeex xar jëppel la ko bëggoon def mu ngi koy oh oh oh, oh. laa ilaaha illallaah eh, eh, eh. ay waay Robert daan na. Ah, gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di gën a suma ñaari waajur du nuyu ñu teew yëpp.

Jordan a ko daan de jël bu rëy. Ah. waaw only six waaw six mois la ñu war a jëflante only twelve February waaw. ñu woon comme d'habitude rek nu ñuy waaye si yeneen combat yi xam nga parce que ñun bis jaaxalatuñu bis bu nekk bëri nañ ko amana laale ak moom laale nañ xoon bii dañuy tullati man ak moom waaw dañ dañ laale am nu fa demee waaw ku nekk. waaw am na mu fa demee rek mooy loolu moom moo xam ne xam na moom su ma waxee moom xam na daf ma daan ku nekk jaay yoonam di liggéey muy daan muy prouvé muy prouvé ba yàlla boole ñu tey dama koy jëli làmb ji man làmb la maa ko soxla dama koy jëli mbër da nga koy daan mu topp la pour ngeen bëree waaw moom dafa ma daan topp mu ñu bëree moom moo topp bala combat bi taxaw moo ma topp joraan si boppam moo ma daan muy aw yooni boppam ma aw sama yoon muy daan mais daan ñu dem ba si kaw mu toppaama di ma laaj moo tax combat bi tax ba tey wa waaw ba léegi parce que combat bi mun naa wax ne ko gën maa ko gën a war a soxla parce que daf ma daan daf ma daan waaw te Robert Taay laa nekk si guddi yoo xam ne amul ñaari xel si waaw mu ngi liggéey am na doole car macha allah xale bu ndaw nekk si yoon tey ma a joraan su ma ko mën a moom warul yomb dafa war a métti dafa war a saf saafu dañu war a jëflanteel ba askan wi làmb ñu xam ne Robert Robert ak Jonaan jëflante si digg géew bi waaw man a Tonnerre xew ci dafa am wàllu am maa ko def parce que dama ko dóor mu kawate mu tërëf ma parce que man dama bëggoon moom xam nga yàlla def taxaw wane wul loolu mu bëgg a sàcc combat moo tax ma mu jeex combat bi ku xool Tonnerre si suuri làmb ji ne sax kii mystique jàpp ko si làmb ama amaana tey comme làmb fi mu tolloon man ak moom dëgg la moo njàng si làmb waaw doon xale boo xam ne làmb ji Get Bari de damay bu doole dama am doole dama ko fut dama fuddee ko ñoom nangul ma te man dama wax ne dama koy wax man sama adversaire Robel su fuddee ko am doole ci geew da xalat day attaqué to luma fa neeg arab dama ciblé mu attaque ci kawam japp ko daan ta bu taxoon dama ko don duma parce que man loolu lama yebalon yebaloon dañ ma combat bi duma ko balang koy daan waaye lamu yëpp ci bi lay ci bi lay fourni fourni lamu Gambie yëpp sama contre Jordan parce que Jordan mom da nek mbor mo xamé du allié dama ko séeréel loo champion mom nangul ko champion day deugal boppam sama may deugal sama bop da dama koy wan combat bi grand combat la te dafa wara a saf ñëpp lamb gamé day war a xam Robert ak Jordan ñuy bëri te dañuy xex te mom mom la wax mu daf may duma mu daf may duma baax na mo lu la bëgg parce que am na mbëri am na mbëri ko day wax dañuy jaaxarloo ak suru lamb ji li ñu ci doon benn waaw man gëm na la Jordan bu mu wax lolay prouver te man dama gëmantoon lu may wax loolu lay prouvé te man du ma dellu gannaaw moo tax ma ne ko dañuy jëflante lu métti ba nañu a jëflante loolu li ñu signé man ak moom ñu war a jëflante ba lamb yëpp ñu xam ne ba ñu namoon lamb yëpp daylu si ñu bëree lu leer ñu daanaan si man non gisuma loolu parce que Jordan man bu may daan bu may daan moom man Jordan moo njëkkoon si lamb fépp kon te ni fiftin laa dugg si lamb dama dugg si ikiri ma dem yàlla def ikiri boobu ñëpp bëggal ma seen boobu at dugg si ikiri bi at bi jeexagul ni jox ay combat may bëri yàlla fekk na Jordan muy bëri combat yu bëri parce que lu dama daanoon bébé xarañ guddi yooyu soo gars pour si combat ma jël ko am nu fa demee parce que xamoon Jordan xam ko waaw dama dem ba xam ci Jordan xam mooy kan man ma xam ma may kan dama xam ko rek dama ko xam rek only six only six la nga xam ne dama xam Jordan ak may dugguma si kenn laajtuma kenn waxuma kawaay mu taxaw bi léegi waxuma kenn na ko la may conseil si Jordan parce que man su ma waa équipe doy nañ ma ak lu ma liggéey toon lu ma entraînement la doy na ma ak sañ sañ laay waxee sañ-sañ laay demee loolu la lu ma wax ak lu ak lu làmbu Gambie yëpp ñu teg seen bët combat mën a mën a Jordan nañu jëflante lu métti si digg géew dina won Gambie yam na man dama mën xex dama ko jàngi Jordan amul lu may ragal si moom sax man dama na dama gay man man Jordan suma démé ba am arbitre si la mais am lu may am ñaari xel si mom alier bu lamu di pay passé dama teg si mu mu di tegee na amul lu may ragal si moom sax mot moo tax dañuy moo tax dañuy dajee moom xam na loolu moom moo ko gën a xam ne dañuy dajee dañuy jëflante moom xam ko dama des si moom daal bu dëgalee boppam dal man moom bu alier wa bu dëgalee boppam dañu jëflan dañu daanante ku nekk doxe si inshallah su kàttanu yalla may ñaan yalla may man dam ci kawam ndamul see dugg it gaaw waaw comme na ko waxee rek xam nga tout tànk moom nga nekk xale am na yoo xam ne bu lay dal xale nga yaa ngi dem rek xam nga fooy dem xam nga xale moom dafa mel ne comme néegu lëndëm rek da ngay dem su am noo def dina loolu man amoon na temps boobu loolu yëpp may dal ama conseil bu baax may digal si laamu tey nag Robert daa dem ma am loolu si laamu te amaana tey tey fu ma toog ni sax bala muy ñibbi sax dana soo ko amee nga am supporter yoo xam ne nga am ne fu dëkk moo nekk sa gannaaw di la ngéemu ñu nekk sa gannaaw nga am yenn mag yoo xam ne dañuy toog di la conseil war ngaa toogaa xoolaa sa bopp en tant xale bu ndaw essan tool ni rabel daa toogaat ay xale yor ay mag yor ko diko ko yoon di xam guddi moy nek ko bu bëccëg fu muy nekk rabel boobu moo sensé ak tey rabel démb ak tay du nekkul benn ñoom dama bëgg mu xam loolu jëlaan si boppam dama bëgg mu xam lu rabel dembu ak tay du ben gisagu len dara sax suru lamb dama ragal gu ba jotaan ni bala lamb ji billahi lu la wala lu leen tegal ni mo futé gu ñu am ñibi bala ñu sëgg waaw mu loolu laa ragal moom mu futeegu am ñu ñibbeegum wala ñu ciblé combat bi nappaatuwuma man si la soreetut billaahi walaay soreetut man maa pare dama xam moo teg si sama bakkan parce que dafa ama punka yu nekk si kaw dama leen bëgg a jàpp te fu ma jaar si booy bi waaw loolu moo tax ma jël ko sax foog ma jël ko rek jëflante moom am fu ma ko teg waaw loolu daf ko conseil moom la conseil rek nga moom bu loolu nee nga wax tey moom laa ma ñu am di wax rek waaye jëflante bi on la waaw loolu ñu si liggéey bu baax a baax te war ko dama ko xamal ne ko combat bi du yomb ak moom durant combat bi sax boo yee xam ne robel mu daanoon ak bii du benn bii de xoolal bii dana am xeex dina am bëre askan mi daal dinañ kontaan bu baax te lu ma laa wax nii ñëpp nañ si teg seen bët mooy daax si combat yi combat bi suñ ko bëree ak ba pare da ngeen gëj a gis combat bu mel su ma diggante mën a Diorane bu dee dëggal la boppam waa jaaxalo moom on est 12 ñëpp suñu waa dëgg waa Darou Mba Latria Diabang Kosoroot bi axlu bi ñëpp waaw waa daaru yëpp du xale du mag si fans club bi ñëpp a ngi koy waaj di on di 12 daal di wax promoteur bi naka on di 12 daal Robel moom ñëpp xam ne ne ñëpp xam ne ne comme si gox la nekk te koy topp te on di daal na ñëpp teew waaw ñëpp a ngi koy waaj te danañ fa def lu leer te danañ fa wàccee daal sora su kàttan yàlla noonu demee waaw di ko sant di ko gërëm rek di ko wax ne moom li ñu ko ameel mooy ko mbooloo waaw ñu si liggéey bu baax a baax te man ñaanu ma yàlla di bëreeg suma adversaire ABC bu ëpp ma mbooloo man loolu dama koy daw loolu su ma ko su amee rek dama may def gàcce man waaw moo tax suma adversaire ba suba dama koy lijjanti man ñaar ma yàlla may bëreeg suma adversaire mu ëpp ma mbooloo ma loolu day wàññi si man lu bëri moo tax su ma waa dëkk sax ñoo xam ne loolu ñoom dañuy dox si loolu sax dañoo na combat bi si kàttanu yàlla gars yi xam ne yow comme dëkk moo nekk sa gannaaw te dinañ gis lu rëy te on dit tout booloo dool yi booguñ dool yi paradise maa ngi dëkk ba daaru waaw booguñ booloo si kàttanu yàlla ki la jaaxal bi doole ma sa gars yi da gis da nga gis gars yi rebelle yi parce que boo ko fi mu dëgg amaana tey si supporter yi am na ñu xamante parce que doole moom mun naa wax man ma doom ndey la quoi foog si tey xam nga comme lamb moo ñu boole man ak moom xam nga budul lamb sax xamante neen xam nga naa daal moom prédage dëgg man daaw su mbaa dëgg mu ngi woon a bokkuñu boolo ndax on est twelve daal dina leer on est twelve daal ñëpp dinañ xam ne rebelle ak doole moo ñu bokk boo ne igri ay doomu ndey leen waaye bokkuñu mbooloo si kàddu yàlla ñëpp dinañ si teg seen bot di waar suma wa deug du nuyu suma ben grand bu baax muy bac bac ñang du ko ñaanal jaaw mu jëkkëri soxna Kébé bi waaw ku mu ku yag ci man suma ma ébonee may yar suma ma xalé waaw waaye moo may toog di yedd duma tek ci yoon bu baax xam nga di ma di ko ñaanal jaaw mu yag si lu bëgg yalla defal ko ko waaw joran man la Robel domi daasu su mbaale gi day ñëw jëflante ak yow only the six naa jëflante yow naa teg lu métti waa Latrikunda yow ngeen teg seen bët on lu ma ragal mooy ma futteeku ngeen xaddi ngeen daw ñibbi muñ leen rek day jeex ay minutes la rek ma lijjanti ko ngeen ànd ak moom ñibbi ngeen defal ko ah noonu lay demee ma la daar daara du ma ragal du ma dellu gannaaw si àll bi laa dëgg damay dellu de billaahi noo lay demee. waaw aoudu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di julli si di sant suma ñaar waajur di gërëm ñëpp. maa lay nuyu yow si sa bopp ak ñoom Korka ñoom Waagaan Senior xam nga di nuyu ñoom Esa ñoom caat promotion yëpp di bëggee ñëpp di bëggee waaye jimbi waaye timeless yëpp nag bàyyiwuma kenn man ak volume la volume bi Ibo Town. volume door na moo xaw a siggi tuuti ndigal faal moo xaw a ëpp tuuti waaye moo xaw a moo gën a gàtt aywa ndigal faal volume ndigal faal volume ndigal faal laa ilaha illallah. xawoon naa jeex de. waaw volume moom lu ma koy wax bëriwul comme moom daal yàlla na ko yàlla may wér yàlla may ma wér ba bis ba rek incha allahu rabbi yàlla may man ndam si kawam waaw. déedéet combat bi moom loolu moom man man maa ko war a wax man ak moom ah combat boolewuñu sax jos tolof tolof moo ma boole ak moom rek. waaw waaye xam nga ñu ngi liggéey lu métti na bu bis ba incha allahu rabbi yàlla may ma yàlla may ma ndam si kawam. non volume kay moom loolu man maa ko war a man maa war a wax ne tolof tolof moo boolee moom bi ko tam ci combat bu moo jógee xam nga yàlla may ma si defet waaye maa ngi koy sant yàlla yàgg naa dam di am dam su ma demee ñàkk dama koy sant yàlla di ñaan yàlla combat bu jublu si nii yàlla may man dam incha allahu rabbi non xëy man man moom duma man moom mooy loolu lépp lu mu ñëwee rek pare naa ko waaw ndaxte lépp la ñuy entraînement xam nga maa ngi sant itam ñoom xoyantaan bu baax ndaxte ñoom ñoo may train waaw dëgg-dëgg ñu may jàppale combat eh, yàgg naa entraînement ak ñoom suma combat yu bëri ñoom ñoo ma dee tireen si combat yi ñoom maa ngi leen di sant bu ñoom xoyantaan ñoom licin xam nga ñoom ñoom gay naa ko ñoom ëmma ñoom ñëpp daal ñoom booy baliya ñoom ñëpp dëgg-dëgg su ma amee combat ma dee jàppale ñoom laa di ànd di tireen fu nekk den may kool waaw di ma jàppale di ma teg métti nag waaw maa ngi leen si gërëm bu baax non waaw loo gis rek xam nga comme su passé rek daf lay jox jàngat bu baax man moom gëm naa ne suma ma morom mënul ma te daaxul may bëree yës euh, combat yu ma dee ñàkk yëpp confiance bu ëpp ma ma ko dee ñàkkaloo waaye bii euh, léegi lu nekk suma kanam dinaa si bàyyi xel bu baax comme que dal na ma dalaat ma léegi lu war a ñëw dinaa si bàyyi xel bu baax a baax incha allahu rabbi waaw xam nga loolu yàllaa ko def si man nit ki moom lu yàlla def si yow rek da koy sant yàlla dëgg la nag ñu may topp yëpp. mun naa wax ne fii laa xamante ñoom man dëkkuma fi waaye comme dafa mel ni fii laa dëkk waaye yàgg naa fi nag juddoo ma fi waaye fii laa yaroo bu ma nekk xale ba tey maa ngi fii waaye maa ngi sant yàlla ci loolu di sant waaye Kungu Jang yëpp comme que bu ma jógee ñu topp ma maa leen di sant bu baax baax di sant suma fans club bi yëpp maa ngi bëggee ñëpp euh, góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant euh, suñ président fan euh, écrit bi Keba Foun maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm ndaxte daf ñuy jàppale bu baax a baax di nuyu suma waay fans club bi yëpp ndaxte dëgg-dëgg ñu ngi may jàppale suma combat moom du ma si dee xalaat dara lépp ñoom ñoo koy des wàllu oto wàllu añ bi yëpp dañuy yëkkati xaalis di ma jox loo xamante ni fayin ma ko si làmb bi pour ma koy préparer suma combat kon damay sant yàlla bu baax di leen sant ñoom tamit di leen ñaanal jàmm. jàkkaarloo bi on dit twelve la incha allahu rabbi waaw ñu ngi koy préparer rek comme ah, lu raw lu ñu daan préparer suñu jàkkaarloo yi rek waaw bu soobee yàlla. waaw non ñun moom chaque jour day ah, mbooloo mi dafay gën a yokk waaw ndaxte koñ soo fa nekkee de ah, amal ak jàmm ñëpp ëllëg si biir lépp loo am lépp loo mun a xewle ah nit ñi den den la si jàppale waaye soo nekkee si koñ téye sa bopp bis boo xewlee da ngay ruuse waaw koñ moom soo fa nekkee da ngay yaatal sa boppu bis boo xewlee nga gëstu gis ñëpp sa boor nga kontaan waaw maa ngi sant yàlla si lool na di sant waaye Kunkujang bu baax a baax waaw jàkkaarloo bi ñu ngi koy waajal bu baax a baax comme lu raw lu daan waajalee suñu jàkkaarloo yi rek wa fans yi moom xam nga di len wax ne rek ah, eh, jàkkaarloo bi on the 12 la combat bi match on the 6 la insha allah rabbi ñom ñoom ñu préparé génn ñi dam yalla may mon dam ci kaw boy bi incha allahu rabbi waaw jàkkaarloo yi daf dee teel waaw dinañ ko sóoraale bu baax baax allah waaw ñu koy sóoraale bu baax di ko préparé waaw mom mom di ko santé rek di ko gërëm ndaxte bu mu duggé ci lamb yi yàggut bi moy ñaar yoon mu may tëgal combat waaw maa ngi koy ñaanal yàlla fu mu bëgg àgg si làmb ji yàlla na fa àgg yàlla dafa ko si jaam ak tawfeex yàlla na am yokkute si làmb ji daal benn tegu ko si kaw waaw yàlla dafa ko jaam dëgg dëgg jàmbaar la mu ngi jàppale ndaw yi bu baax a baax non volu moom man moom aw ma leen lu ma koy wax yàlla nañu yàlla may wér ñun ñaar yàlla euh, ba bis ba yàlla may ma kattan ma daan ko insha allahu rabbi waaw combat man suma combat du dee yàgg bu soobee yàlla suma combat du dee yàgg su ma benn combat rek moom mos a yàgg waaye su ma combat moom du dee yàgg su taxawalee dëggal boppam moom incha allah rabbi du yàgg no waaw lépp lu combat bi war rek dinañ ko andi incha allah lépp lu war si combat bi rek dinañ ko andi ndaxte ñu ngi train bu baax a baax waaw am nga maa ngi si oo gaa yëpp waaye Kunkujang yëpp ak suma waaye dëkk waaye Sanjaal yëpp maa ngi ñëpp di oo gaa yi si jàkkaarloo bi ak xam nga ah, ak combat bi maa ngi gërëm suma waaye égri di gërëm égri ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm waaw ndaxte suma combat yi may jàppale bu baax a baax de bëggee képp ku may jàppale nag waaye Kunkujang yëpp maa ngi leen di euh, ñaan si bi si jàkkaarloo bi ñu génn a dem waaw ñu préparé bi si combat bi ñu dem yàlla may ma dem si kaw booy bi maa ngi sant suma gars yi suma waay fans kolo bi ñoom Ilen ñoom Yacine ñoom si président bi ñoom Kéba Ndiaye ñoom Beles xam nga ñoom ñëpp daal ñoom Anta ñoom Evo Mbaye ñoom Nant maa ngi sant suma booy bi euh, Bébé Sandial moom tamit yàlla yàlla na ko yàlla may combat yàlla may ko ndam incha allahu rabbi suma booy bi dama tuddee boppam waaw. waaw maa ngi nuyu suma waa écurie yëpp di nuyu suñ président bi waaw di nuyu coach beeg manager bi yëpp waaw di wax na ñu jàpp si combat bi nag ñun tamit ne ñu jàppale ndaxte làmb ji dafa métti trop entraînement bi rek dafa métti moom. waaw loolu la ah dëgg-dëgg gars yi ñu ngi may jàppale na si wàllum terrain bi suñ ma bàyyi woon mun naa wax ne loolu yëpp. du si mun a am ñoom xoyantaan moom dëgg-dëgg maa leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla li ci combat bi yàlla na ko yàlla may ndam ak Boy Balia ndaxte ñun ñëpp ñoo di ànd di train waaw mun naa wax ne comme man sax xam nga registré ma si écurie boobu waaye mun naa wax ne si écurie boobu daanaka foofu laa nekk because am suma lépp si combat bi ñoom la den ma dee jàppale bu baax a baax waaw waaw maa ngi nuyu suma waa écurie yëpp nag képp ku nekk si écurie maa ngi leen nuyu coach beeg manager bi xam nga président écurie bi Keba ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu daal waaw waaw volume moom lu ma koy wax bëriwul volume yaa ngi may dégg bisu combat ba nga préparé incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla may kàttan ba bisu combat ba nga ñëw nga dëgal sa bopp boo dëgalee sa bopp moom bu soobee yàlla combat bi du yàgg ma jàpp la daan la incha allahu rabbi. lamb ji door na <laughs> ah kay waaw étoile dolli ma <laughs> ñu ngi léewtoo ci suuf. seen xeex a neex. ndeysaan lay lay la la. étoile sànni na bëgg a dem caat taxaw. caat ak dolli ma. étoile la. eh eh dolli ma ak étoile la. waaw étoile ak dolli ma man lu ma dal tey. ah man Ndiaye lan moo ma dal. waay gars yi dañ xon. waay dañ maa xon waay dañ ma liggéey waay. dañ laa liggéey dañ xon waay. étoile ak dolli ma. Ah. ndeysaan étoile am na lu nekk weex. cong amagul kurpeñ dalagul. eh caat. Eh, eh. étoile door na ko rëcc ko rëcc na ko étoile rëcc na ko rëcc na ko étoile rëcc na ko étoile rëcc na ko waaw ndeysaan étoile dolli ma étoile ak dolli ma waay waay étoile ak dolli ma étoile rëcc ndeysaan waaw dañ ko dóor mu lancé genn at génn seen diggante Modou Gassama la waaw aywa aywa ñu xeex aywa ñu ngi xeex aywa xeex ba métti na ñu ngi xeex ay xeex ba métti ñu ngi xeex mooy door mu daanu bàyyi waaw door mu daanu mën na caam ñoom ñaar ñëpp mu daanu mën na caam door mu daanu mën na caam soora eh, jàpp na ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay soora ay waay waaw dafa gis na booy bi kawoo mu bëgg a non loolu la. waaye ndax ndax noonu la war a demee. waaye garga ku muus la ku yeewu la. daa sonnoon moo tax mu dem dafa ci la ci la mën def ko lu ñaaw. lim doon bu mu ko tak. ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay. oh oh oh. waaw waaw. oh. sóoraat. garga njëkk ci suuf daan na garga sooro daan na garga sooro daan na garga ah. ndeysaan demir doowul bëri na ba daanu waaw demir lu may lancé mooy doomi nunkawe nañ génn jàppale ñu man am koo mënta daan làmbu Gàmbi képp ku may dégg mu ngi nunkawe ñu koy jàppale daaxal daan waaw ma maa la wax li ba xam nga ne yow rek yaa gëmoon ne da nga daan ak ñi ñii la wër ni waaye man a ah, suma grand ñëpp suñu mënoon ni Kounda ah amul problème Kounda man su ma tirénu su ma tirénu su ma duggee si yow am na yaa su ma mayen laa demee booy làmbu Gàmbi kenn dàqul ma bi la dóoree coup gis nañ ne coup bi dal na trop boobu loo yëg. coup bi dal na waaye man maa ko wootee maa ko woo si xeex. ndax loolu wóor na ponkal bu toll nii xoy nga bàyyi ko amul problème mënoo utiliser ñaar mën ta xeex mën ta bëree su xeexee rek dinaa bëree ponkal xaju si yàlla dama ko woo. si la mu dóor une deux si laa ko dóor dóor bu daal mu fayu si moom loon fayu fekk maa ngi dem si tànk bi si laa waaj jël ko ñibeeg moom yàgg na. tey li mu bëree xanaa yéen a ko man maa ko woo. man maa ko woo xoyantaan. Robert. waaw. waaw fay naa la. waxoon ma ko de. waaw loolu moo am rek xale ay na. dañ ko liggéey rek di sant suma suma écrit amoon seen fay. grand combat bi laa. combat bi combat bi gaaw la fa noir ak las ak. affaire ci day xam lekk. waaw waagaan boobu leen soxla. la combat bi ku daan nañ ñu ko jox. L'enfant eh, ak sa waa ji ku daan nañ ñu ko jox ba. ayca mu ngi noonu gis ngeen ko lool la ñuy waajal muy jàkkaarloo bi nga xam ne on dit 12 la. ah mu nekk nag lu am solo foofu ca Serekunda West Mini Stadium ànd ci ak Thiat promotion ak staffam bi nga xam ne saay bu ñu duggee ci làmb xel daal ku ci mel ni ah, ku ci mel ni Essa maa ngi koy nuyu di ko jaajëfal baax a baax ah waaye di nuyu tamit nga xam ne mooy maam Jibi ak wa Fësal yeb di len ñaanal jamm ak salam di nuyu jebel Touré di ko ñaanal jamm waye di nuyu mbollem ko xamne rek bok nga ci li nga xamne mom moy akhlul lamb waye na ñu bi ku ci melni bisu Balla sama domla la sama xarit la ak ñi nga xamanteni ño nek ño taral bis bi yeb ñu diko wajal on the 12 euh, du yomb ben yoon ndax ndaanaan yi nga xamne ño fa wara jakarlo ku ci nek amna lo wax jotali ko sa morom te japp na ne fofu lañ koy ci Stadium kenn du kenn du kenn du caat promotion ndax li nga indi kenn xalaatu ko woon waaye nag ah ci lu mu xat-xat xorom ca moo tax dina saf sàpp xorom léegi nag mbokk yi incha allah li ci des dañ leen koy bàyyil ba next week su ko defee dinañ fekk mbër yi fa ñuy traîner ku ci nekk ñu am lu ñu waxtaanee ak yow ndax nee naa leen fii ba six match amuñu benn jot ñoom ak ñun la. ba balaa bis ba kon mu nekk lu am solo ñu ngi jaajëfal bu baax a baax ñi jàpp ci programme bi Adou Boy ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Koul ji mi jàpp ci editing bi bala Moussa waaye di nuyu baax a baax Korka Diallo mi nekkoon ci caméra bi ak ki nga xam ne mooy Wagan Junior mi ñu àndaloon di jaajëfal Thiat promotion ak ñi nga xam ne ñooy staffam yëpp rawatina nag ki nga xam ne moom mooy Essa di ko ñaanal jàmm bu baax baax ndax taxaw na ci bis bi di jaajëfalit mbër yi xam ne ñoom lañ seeti woon di ñaanal ñaab jàmm mbër yëpp ku ci nekk yàlla na yàlla defal jàmm ba li nga bëgg ci bis bi yàlla yàlla mottali ko di leen wax ne nag yéen mbër du ngeen ma gën a gore dinaa seeti seen fans club yi dinaa leen fekk fi ngeen di traîner lépp lu bëgg ma def man maa ngi ci seen loxo ah parce que nag yéen a ma bégal foog ma bégal leen kon jaajëfal leen baax a baax ki jaar ci ñëw bi nag xam ngeen ko baax a baax mooy Faye Criason nekk foofu ñënu Sora Johnson sama xale bi nga xam ne lu mu ñëwul baaxul nee naa leen kenn du moom ci mim réew kontaan naa ci yow fay waaye nag du tee rek ma wax leen piis bi fa mu jógee ah moom tamit wax dëgg yàlla alaaji Kebe lañ koy woowee foofu ca Serekunda mooy Kebe Kunda textile moom it piisam ku ne xam na ne dafa naturel day dem ci bitim réew di jëli piis yu baax yi di ko indi ci réew mi ñu ngi ñu kontaan Mariama bég naa ci yow mbokk yi tey lii lañ leen indiloon ci seen bëree bi programme di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañ ko am ba next dimanche wala alarba ci waxtu wi jërë ngeen jëf babaay Miami